jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi rafetluwaat bu baax a baax ànd bi ngeen ànd ak ñun fii ci cœur de ville bu Kaolack ci park des expositions ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel cinquième édition foire internationale bu Kaolack. xibaar yi tey dañ koy jagleel journée des chargeurs muy bés bi nga xamante ni ñu ci doon waxtaanee thème bu am solo muy intégration régionale ak ni nga xam ne noonu la ñuy saytoo corridor yi loole nag ñu amal ko ci teewaayu. directeur général bu COSEC di Mamadou Ndione ak directeur bi nga xamante ni moo yor wàllum euh, conseil di conseil euh, des chargeurs bu Guinée ñoom ñu waxtaan ci waxtaan am solo fii nii ci cœur de ville bu Kaolack ci bërëb bi nga xam ne fi la ñuy amalee forum yi loole ki nga xam ne moo di njiital chambre de commerce bu Kaolack di Serigne Boub teewee ko ñu yëkkati fa ay kàddu nag doon waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne am na ci sous région bi ci njënd ak njaay waaye it euh, ñu àddu tamit jëm ci port Kaolack bi nga xam ne war nañ koy yeesal loole di kàddu yi Mamadou Ndione mi nga xam ne moom moo jiite COSEC ñu ànd teewlu ay kàddoom. oui en fait le COSEC euh, a pour mission bu COSEC moom moo di jàppale opérateurs économiques yi rawatina euh, les chargeurs muy importateurs yi exportateurs sénégalais yi nga xam ne. man ñoom laay qualifié de équipe nationale ndax euh, ñi nga xam ne ay sénégal lañ nekk ay importateurs exportateurs moo xam producteurs yi la moo xam commerçant yi la wala ñi yëngu ci wàllum service ñoom dañuy euh, apporter valeur ajoutée Sénégal euh, donc c'est normal COSEC di leen accompagner ci mbooleem li nga xam ne ñu ngi koy def ci cadre cinquième édition foire internationale bu Kaolack ma wax ne du foire boo xam ne foire Kaolack lañ la ndax yemul ci Kaolack dépasé na Kaolack foire africaine la bés bi nga xam ne tey moom lañ jagleeloon COSEC ñu si doon waxtaanee waxtaan yu am solo it euh, mu soxal réewum Guinée euh, ñu invité ko ci donc ñu waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne am na ci corridor bi ak it euh, mbooleem oto yi nga xam ne yóbbu marchandise jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy am ci yoon wi tracasserie yooyu yëpp ñu waxtaan ci ndax da ngay gis oto boo xam ne buy daw 65 kilomètres à l'heure mën naa daw Dakar Conakry muy 1130 kilomètres mën na ko def ci 17 heures de temps waaye dañuy gis auto transport marchandise yi dañuy def juróom benni fan wala juróom-ñetti fan ci yoon wi ci ay jafe-jafe ci ay formalités yoo xam ne ñu ngi koy am ci frontière ak yeneen loolu lépp mu nekk loo xam ne mën nañ cee waxtaan ñu trouver ci solution ngir euh, jënd ak jaay bi marchandise yi euh, lépp di mën a dem di ñëw ci euh, te jafe-jafe du ci am loole jataay yi nekk na ci lu am solo waaye it ñu gis ne waxtaane nañ port bu kaw Kaolack mu nekk port boo xam ne port bu am solo la ak niñ ko war a gën a draguer li nga xam ne ñoo di bateau yi di fi mën di ñëw ñu fi wàccee conteneurs yi loole dana yombal tamit dem beeg dikk bi ak yeneen réew yi nga xam ne dañoo jege Euh, Sénégal te mën a agsi Kaolack jëlee fi seen i marchandises ñu mën ko fi defee ndax damay wax saa su ne ne Kaolack euh, poumon économique bu Sénégal la Euh, te it loolu buñ gën a defaraatee port Kaolack bi dana nekk loo xamante ni dana jàppale koom-koom bi ngir Kaolack gën a mën a delluwaat fa mu nekkoon waaye jàppale port Dakar bi ngir euh, wàññi li nga xam ne moo di euh, dem beeg dikk bi ak jafe yi nga xam ne am nañ ko ci yoon yi. Et important donc qu'à l'instar de ce que l'État de ce que la Chambre de commerce fait, que nga xam ne yëkkati na ko ci boobule forum. ci la ñuy des ba léegi ndax ki nga xam ne moo jiite chambre de commerce euh, bu Kaolack di monsieur Serigne Mboup moom it àdduna ci fànn googu muy jafe-jafe yi nga xam ne am na ci wàllum importation ak exportation ci Sénégal ak mboolem réew yi nga xam ne ñoo ko euh, wër ak li nga xam ne moo di jafe-jafe ci déséquilibre bi am yenn saay ci balance commerciale bi su boobaa lan mooy doon solution bi loolee lépp Serigne Mboup àdduna ci ci forum bi ñu ànd teewlu ko. Wolof day wax ne bala ngaa laax jaay laax lekk. Donc chaque fois qu'on dit qu'il y a un balance commerciale qui est déséquilibrée, la solution dañuy wax ne nañ jéem a exporter et man du noonu la solution mooy nañ jéem a combler suñ marché intérieur ba doon dugg du duggat exemple si on nous dit li ñuy importer Maroc c'est notre pays ami wax nañ ne c'est 80 milliards nous on exporte que 3 milliards lan mooy solution est-ce que la solution c'est de dire que nañ yokk exportation bi c'est bon c'est bon de l'augmenter mais la meilleure solution c'est d'avoir des partenariats avec des Marocains que liñ doon importer ñu produire ko fii dès qu'on le produit ici cette production va diminuer balance commerciale bi et après permettre nu dès on atteint notre autosuffisance on puisse exporter parce qu'on ne peut pas exporter on produit tant on n'atteint pas notre insuffis notre euh, autosuffisance moi c'est comme ça que je vois les choses directeur yow lañ yaakaar ñun boo ñu laajee léeg-léeg dama doon wax ak kenn mu ne li ngeen di laaj COSEC ma ne ko ñun dañoo bëgg COSEC laaj ñu lu ëpp li ñu doon laaj pour jox ñu lu ëpp COSEC opérateurs yi ñooy fay 0 virgule 30 40 mais man su directeur defoon projet ministre d'accord ak moom on défend ñu dem ñu dem ji président ñu changé ko def ko 1 pour cent les 0,60 pour cent ñu dugal ko ci les infrastructures et nous allons constater que c' est beaucoup beaucoup beaucoup plus rentable et 0,60 yi je pense que mën na génn plus de 20 milliards par an et je pense que ce n' est pas là pour dire que COSEC nañu jox mais nous devons voir comment on puisse augmenter notre cotisation et que COSEC defaral ñu ay infrastructures maritimes ferroviaires et euh, routières et je pense que bu ñu ko defee danañ gis léegi ne l'exportation ou bien jaxasoo bi entre les pays de sous régions dana am ndax du prix yi moo ñu déranger du dara logistique lañ amul logistique tey bu ñu ma woowoon tey ne ma may nañ la benn carton banana benn carton dara x en Guinée woo ma léegi ne ma may nañ la benn carton à Paris mën naa laa assurer ne je peux faire des efforts que le carton à Paris avant 20 heures fii mais le carton qui a gagné ne sais pas mbokk yi ba léegi xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel foire internationale bu Kaolack cinquième édition bi bokk na ci bës bi nga xamante ni moom lañ jagleeloon ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat ñu tànnoon ci thème bu am solo doon waxtaanee li nga xam ne moo di xëyub ndaw ñi ci euh, projet bu am solo projet boo xam ne moo ñu moo di PEJA ñu war cee tàggat lu toll ci 32 000 apprentis yoo xamante ni war nañu leen former. ñu cible ci lu toll ci euh, juróom-ñetti junni atelier loolee nag sabab gi du lenn lu dul tàggataat ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi apprenti yi ngir ñu gën a mën a xarañ ci seenub liggéey ñu ànd teewlu kàddu yi nga xam ne taataan nañ ko fa. donc ci loolu euh, dama ñëwoon pour présenter projet bu mag bi nga xam ne dañ ko am mu nekk projet bi nga xam ne nii dafa jëm ci maître artisan yi ci accompagner leen pour que seen i apprentis di jàng ci anam yu mucc ayib ci seen euh, atelier yi ba ñu mën a am lijaasa. CAP am lijaa lijaasa bi nga xam ne ni moom seen moom la seen moroom yi di am ci centre de formation yi euh, mu mën leen permettre ñuy mën a dem di mën a am ay emploi ci ay entreprise mën a ubbi seeni atelier bu baax mën a doxal seen mbir bu baax comme ça ci Sénégal gën yom pour bénéficier ci programme bi da ngay nekk maître artisan am atelier am apprenti loolu mooy euh, kii bi wala nga nekk koo xam ne nii da ngay def euh, horticulture mais nga am nga am un champ boo xam ne nii day fonctionner ak ay jeunes yoo xam ne nii fukki at ak juróom la ñu am ba ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne ñoo ngi jàng métier foofu loolu rek mooy condition bi léegi ci modalité yi benn questionnaire lañ lay jox nga remplir ko questionnaire bi dañ ciy wax ñaata at nga jot a liggéey euh, sa euh, ban niveau d'étude nga am ndax ndax mën nga liir ndax mën nga bind ndax mën nga def nga alphabétisation sa équipement lan la say apprenti lan la ak euh, yu demee noonu. projet bi moo ngi tollu ci euh, fanweeri milliards fanweeri milliards ci franc fa donc euh, loolu ñoo ngi ko am ci financement wu banque mondiale donc banque mondiale moo ko financé état Sénégal te day day engagé territoire national bi yëpp waa waa Sénégal yëpp ko bokk. waaw projet bi ci ci kiiw approche genre bi dañu ne. ci deux mille apprentis yi mooy fanweeri junni ak euh, ñaar euh, apprentis yi nga xam ne moom la ñu moom la ñu visé dañu bëgg boo ci jëlee téeméer bu nekk euh, fanweeri ak juróom nekk ay apprentis jigéen parce que dañoo gis ne jigéen yi daal ci mbirum informel bi mbirum artisan yi bariwuñ ci. donc ñu bëgg projet bi jéem a dimbali pour que vraiment jigéen ñi gën a participer ci projet bi. mbokki téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel lii lañ leen indiloon tey ñii ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel cinquième édition foire internationale bu kaw Kaolack fii ci parc des expositions santaat leen gërëm leen dig leen daje incha allah ëllëg ci yeneen i xibaar jërë ngeen jëf.